qaala cheikh ahmadou diaw paxa baxbahu laahu baxbaxa mahabat al abdil xadim al muntafi naafi al fardi jami al ala alayhi akbaru ridwanu man xafada al aadaa wal ahibaa ala arbata abiyatin wal haniyat wal abiyat mahabatul abdil xadim wirdi wa huwa lada zil arshi xayru wirdi mahabatul abdil xadim wirdi وهو لدى ذي الأرش خير وردي محبة الأبد الخديم تكفي شرا وأن جلب عيور تكفي محبة الأبد القديم تعطي بركة من بركات الموت محبة الأبد القديم الجنة ترقل أهلها من إنس جنة بركة برم توا الحمد وشكر لشيخنا وكليتنا هنا وهنا شيخ أحمد بامبا waltarda xan sultaani kullil aarifin ahmadu jaw mixrafatu kullil xaarifin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi leen nuyoo di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seetaan gi ngeen ñi seetaan mu mel na nag tey jii ñoo ngi fii ci kër Seexuna Sëriñ Cerno Jaw Paxa di xalifab Cheikh Ahmadu Jaw Paxa ngir waajtaayu bisub sant Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ñu fas yéene koo amal tabaski ba am juróom benni fan ca Touba Ndaamaatu Ngelamu daara yi Nuuru daara nii tey nag dañoo dukki fii ngir xam kan la ñuy sant te moo di Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ci histoire boo xam ne dañ koo fas yéene nettali te kii ko fi nekkal fas yéene koo amal di Serigne Thierno Diaw Paxa su ko su ko defee kon ñu ñu ñu diglu ko bu baax a baax a baax Serigne Thierno Diaw Paxa dikkal nu ci kan mooy Cheikh Ahmadou Diaw Paxa bi ci njëkk moo di dañuy laaj. Sëriñ Cerno Diaw kan mooy Cheikh Ahmadou Diaw di maanaam Cheikh Ahmadou Diaw fan la ganee àdduna ak i waajuram tamit nu mu tudd ak wan askan la bokk kon loolu mooy question bi njëkk. asalaamaaleykum rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Amadou Diop Paxa day mi ngi juddu dëkk dëkk bu ñuy wax Paxa ci sagata get waaw foofu lay gane àddina mbaay mi ngi tudd sëñ Pate Diaw nday mi ngi tudd soxna Fati Dieng waaw bokk ci Euh, néegu néegub get waaw ci waxtu ndawam nag ci waxtu ndawam ci waxtu fukki juróom benn xam daal ci la ci la ko ati wax ne yow nguur si demal jàngi ndax jàng mooy si wàll waaw mu bàyyi ndeyam ak bàyyam daal di dem laxas di jàng di jàng di jàng fu ñu jàng na fa daal ak koo xam ne fii euh, neexatul a jàngal euh, artiste boobu waxoon moom dellu waxaat ak moom na ko euh, demal seet sëñ bi li ngay li li ngay wut boo ko yor mu ñëw fekk sëñ bi ba ba Kajoor mu delloo yoon yor la ko bi ñëw Mbàkke yoon yor la ko delloo si woon moo di daan na foofee ci paxa dal yi tali bi soo ci kër sëñ bi dal yi di móolu seen borom di leen móolu ba ko ci foofu jëfa mu ne pas mu ne na ñëw na ñëw ngir laa bi la tali ñu bàyyi te sol ci kër sëñ bi bi mu ñëwee itam ci sëñ bi dal ñëw moom bi ne ko bët jaw defal yàlla def xam noppi mu xam ne amu ci digal waaw boo yàlla dogalee ba mu delloo rek ci fan yooyu la bi dal di dem Mbàkke mu daal di bàyyi ko pax mu daal koy fekk Mbàkke nag togg wuñ nag ba sëñ bi euh, dem ci géej gi waaw waaw loolu daal mooy tam mooy njëlbeen gi tàmbaliwuñ benn yoon tàmbalee Mbàkke Bawol ba Daaru Salaam ba ñuy góor Tuubaa gi tàgguwuñ fi ba ni mu dem Mbàkke Bari Mbàkke Bari ba ni mu demee gi tàgguwuñ benn yoon. kon noo ko déggandoo mbokki murid yi ñuy seetaan ginnaaw loolu kan mooy Cheikh Amadou Diop Pakha Serigne Thierno Diop Pakha dikkal nañu ci. ñu amaat beneen laaj boo xam ne dañ ko ko fas yéenee laaj muy maliku nuxaat gi lan moo ko waral. waaw maliku nuxaat moo di buuru ñi dégg grammaire bi muy jëm sëñ bi fekkee na ma maliku nuxaat day woy boppam maliku nuxaat fi tii saa maliku nuxaat fi tii saa mooy ñi nga xam dañoo jàng ba dégg ba nga xam dañoo xam grammaire te muy xam-xamu naw mu ne moom mooy seen buur moom mooy seen mooy seen buur. amul jëw laqabu ray luxaa awi luxaati aw fasihum baluxaa amul jëw laqabu sultaanu wala arifin wal kitaabu taanu amul jëw laqabu milku nuhaa aw maaliku nuhaati fiti saa loolu loolu wax bii ñëwul sëñ bi waaw ñëwul sëñ bi loolu loolu wax loolu mooy euh, xam-xamu grammaire mooy xam-xam bi gën a foo ci xam-xam ci fan yi xam-xam yi euh, <coughs> fan la goo xam ne mel ne naxu mooy mooy mi ngi mel da ngay jàng di ba dem ci ab dëkk ba bu ñu ñu ñu géej jox dëkk bi ñu ñu pam ñu pamee ko nag euh, boobu nag fekk jéggi woo ba dugg ci dëkk bi euh, doo wax ci dëkk bi du wér dëkk bi seen ci biir doo ko xam ñoo ñi nga xëy nag ba am grammaire ba nga xëy dañoo ba jéggi ci pam boobu ba jàll moom ñoo ñu la wax ne moom mooy mooy mooy seen buur boobu jox ko waaye maa ngi dana wax fi ci saa. waaw mu mel ne noo ko déggandoo kon ci li waral malikun noxaat gi waaye am na leneen loo xam ne yokk na ci biir muy wal luxawi yi na wal luxawi yi na gi lan bëgg maanaam histoire bi lan moo ko waral ba mu dàkkandal ci wal luxawi yi na waaw loolu li ko waral moo di dafa mas am na fu mu bokk dafa am na fu ñu bokk di jàng ba xamante lool bu wëlalante bis mu bay ko fi mu bay koo dem seeti ci alaj malik noo xam moom ba noppi laaj ko na ko waaw ku kuy ku am na ku am na ku jàngale na mu ne ko waaw am na koo jàngale mu ne ko kan ko jàngale mu ne ko Moussa gii sëñ ma jox na ko woo ko mu sëñ Malik yónnee ci Moussa gii mu ñëw mu ne ko kii de moom ma jàngale na woo mu ne ko xam yaa jàngale na woo mu ne ko man maa jàngale mu ne ko ndax xam nga ci dara mu ne ah waaw xam naa ci dara kay su ma ci xamul woon dara kay du ma ko jàngale mu ne ko man maay Maalikul Nuhaat dama fay ñëw léegi damay moo bëgg nga gaaw lépp loo ci lu rek nga laaj ko ma ma leeral la ko ba ma dugg ah góor gi daal di dem daal di beru seet li nga xamante ne moom defe na daal eh, ku moom xamu ko defe na moom moom laaj ko ko bi mu ko laajee nag mu tontoo ko eh, tontoo ko ay woy woy yi mu def ko arabi jurhum jurhum moom mooy sunu maam Ibrahima ba muy tawax Kaaba ga ci arab moom moom moom moom Ismaïl doom yooyu ñoo Ismaël làkk yooyu mooy ak arab yi dañ ma jox tontu ko arab yooyu bu noppee nag daf koy woy bi mu ko joxee góor gi góor gi xool ko xamu ci dara mun ko man mu ne ko ndax lii arab la mu ne ko arab la mu ne ko man di ci dara bi ko leeralee ba noppi nag mu ne ko waaw kay malikun nuhaat wal luxawiyin waaw loolu ko loolu moo indi luxawiyin jooju waaw moom maanaam yëmu nga foofu rek yaay yaay yaay malikun luxawiyin itam maanaam ñi am ñi xam lu ko dal euh, fekk waxoon na njëkk ca njëkk na maaliku laqabuhu raayu luxaa aw luxaat luxaat ay lang aw fasihun ba luxaa fekk baxar noonu bu yàgg góor góor moo moo moo moo ko ña Musaa mu ci indi dool yi na hmm. moo ko ci hmm. noonu demee ah, kon mu mel ne ñoo ko déggandoo ci li waral wal lu xaw yi kon su ko defee ñu gën a eh, digluwaat rek ci dañuy gën a xuus ci loolu moo di Cheikh Amadou Diaw Pakha malikun nuxaat wala luxawi yi ni gim doon gim gim waxoon muy ñu xam wàllum naxu loolu laa wax fiti malikun nuxaa fiti ci waxtu yi mu toll mooy mboolu mu ngi dëgg na mu ñëpp waaw ahmadu fi nuhaati kal bi fi naali wal luxuuru fi rusoo bi waaw la yaxsoo mooy sangu yë mooy sangu yëpp ni yasob mel ci jëmb yi noonu la noonu noonu noonu mel ci ñi nga ñoo dégg moo amul fi su fi nuwaat yi kal yax soobu fi naal yi wala woon fi kon ñoo ko déggandoo ci maliku noxaat wala luxo wi yéen nga xam ne Cheikh Amadou Diaw Pakha moo daan ko wax laata muy dikk ci sëriñ bi. waaw kon nu gën a wéyal rek ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ci lépp rek di waajtaayu sant Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ginnaaw loolu dañuy wéy ci eh, Cheikh Ahmadou Diaw maanaam ak sababam dikk ci sëriñ bi ndax am na ay histoire yu bari yuy nettali ne bi muy dikk maam da doon jaay xam-xam am na ñu ne am na ñu doon kii loolu nag lan bëgg sëriñ Thioro Diaw leeral nu ko bu ba mu gën a leer ndax tamit yaatu na te tamit maanaam maanaam wute yi bari na léegi ki nga xam ne nag moo ko fi nekkal danoo bëgg mu defal ñu ci waxtaan wu yaatu ci diggante li ko indi ci sëriñ bi ba ñi nga xam ne ñooy seetaan gën a xam Cheikh Amadou Diaw Pakha lan moo sabab ak dikkam ci sëriñ bi kon ñu bàyyi ko xel bu baax moom li ko indi sëñ bi mooy la ko la ko jële woon ci kër baay ba mu dem ci juróom ñaari atam la ko woon na ko demal jàngi-jàng mooy sa wàll ngi jàng di jàng ba àgg yi mu àgg kooku yëpp moo ko moo ko naa demal seen sëñ moom moo yor di nga yuut mu fekk sëñ bi Mbàkke Kajoor waaw amul xam sëñ ma noppi ba ba ba ba li ko li ko xamal li tax mu jàngi moo ko xamal moo demal li ngay wut mi ngi ci biir sëñ bi ba mu ñëwee ba mu jëlee sëñ bi itam da ko la jox boppam loolu ñu ci wax yëpp ay wax ay wax yi rek la ay wax yi neen rek la waaye fii fii fii nii ñuy jaar ba ñëw sëñ bi rek foofu la jaar sëñ moom nitu nitu caaxaan du ñëw ci moom nitu neen itam du ñëwul ci moom wax rek moo moo ko indi sëñ bi li li li li li firnde loolu mooy ci gànnaar euh, bisu bisu alxames ci xumaag di weeru koor sëñ bi woolu na leen moom moomu ak ay ay kilifa sëñ Masamba ci la bokk sëñ Modou Deme sa bokk sëñ Modou Diop Masaru sa bokk waaw ah, sëñ ma maam Penda ma ma ma ma ma Mamour Penda sëñ ci la bokk mat nañ juróom-ñaar ba leen sëñ bi woroo ba ñëw boo fee ci gànnaar ci weeru koor ci xumaag fekk fekk mi ngi dar bu fuutul ma soxla ci ab dundam mu ne ko mu ne ko gars yi xar ko ci digg bi jox ko jox suñu sàmm ne ko ma sàmm xool foofu yi suñu sàmm ba mu xoolee téere bi bi sëñ bi defar ci dërëm mu fekk ci tur yi mboolem ñi ñuy woo waaw mun naa mu ne kéemaan la mooy la mel nañ mboolem ñi ci ne bi seen tur yaa ngi ci seen tur yaa ngi nii ci biir bi mu ne ko tur yooyu de ba muy ne foofu boobu ñoom ñi kenn ñëwu kenn ku ne ba nga ñëwee àddina mag ma bind la la ci tur ndey ak ci turu bay waaye kon dama ko mën a defal ñëpp waaye teewul xamoon naa ne fu ma ne fu ma ne ñoom ñëpp ñu mu fekk kon loolu defe naa ne leer na ci ne sëñ bi ñëw ci moom moom ñëpp moom moo moo moo moo indi moo leen fenn itam ndax téere boobu mu mu mu mu wax sëñ Massa mu xool ko mu xool ko ca muy ful ko mësoon. ma jëw turam nga turam nga ci biir euh, daf ko sëñ Massa daf koy lii rek ki maanaam loolu ndax mu la mel ne tur boo ñuy teew fii ñëpp seen ngi mu ne ko ba ba tur yi ne foofu yi kenn ci ñoom ñëw ñëw ñëw ca dina waaw xa mënoon naa kenn ku ne ba gaa ma woo ma ma ma bind la la sa tur ndey ak sa tur baay waaye loolu kan dama ko mën a defal ñëpp waaye xamoon waaw. ci loolee yooyu ne ca mooy leen mooy leen andi bi waaw kenn ku ne bukk bukk laa sama morom la andi bi noonu la demee waaw loolu rek la ñëpp ñoo bokk lu andi bi dañ bi andi ci boppam moo leen fi andi ne tamit bi mu dikkee ci sëriñ bi. maanaam ci jébbalu gi yaakaar naa def na ci ay bayit yoo xam ne maanaam day firndeel loolu kon xam naa bayit yooyu bu nu ko mënoon a digtal. gannaaw ba mu dul see gannaaw ba mu dul see la def la def la def biir waaw waaw ba mu demee bu ñëwee ba mu delloo mu ne wax teytu ko yaa xutbal wara mutaxayiba min al ahli wal awtaani xayraka naasiya wa faaraxtu ahli kullahum bika mumina wa waan xaytu saa am min ilayka nawaasiya walastu ubaali bil baraaya jamihim isaa xaribo wallahi in kunta radiya wa yaxud bi judli bil muraadi jamihi bi kawni min ahlillahi fi la isaaya wa kawni ilay bi taaddubi waasilan wa talyini xalbi bahar ma kaana qaasiya wa tusiluni in shiita fi nisfi saatin li kawnika fi saddaari fi l ardi aaliya wa illa fa mahma shiita yaxud ya axi fa inni muqimun bil iqaamati aaliya wa amru iyaali kulluhu xat taraktuhu bi aydil murabbi bal nasiitul loolu rek foofu foofu nee naa yem ci nga xam ne moom ba muy ñëw yëg ci yàlla ah, ak bokk ci ñun yàlla loolu ko noonu sëñ bi. bi mu dikkaatee ci sëriñ bi ci la waxee bayit yooyu noonu ah, nga xam ne moom la doon nu digtal léegi nii. ñu defaat ab leerlu ci diggante Cheikh Amadou Diaw Pakha ndax tamit comme ni mu ko leeralee léegi amaan na beneen histoire boo xam ne yaatu na lool ci ñuy wax ne wul du xanbal moom noonu Cheikh Amadou Diaw Pakha moo sàkkoo moo moo ko sàkkoo gis te loolu tamit maanaam danoo bëgg si njëriñ rajo mii indil ñu ay leer ay leeral yu leer naññi. waaw nga xam ne yaatu yaatu na yaatu goo xam ne ñu bëri ñu ngi koy wax. naan ay moo sàkkoo gisiwul doxaan bal am question yi mu koy laaj yooyu yëpp ci wàllum nawook ay werante boo xam ne am na ceeg te yooyu yëpp am amewul noonu duna bëgg nag mu leeral na ko ba nga xam ne ñiy dégg dinañ xam ne lan mooy sabab bi Amadou moom waliyu naar la woon boo xam ne wii dafa dewoon dafa taalifoon ab taalif ab téere bàyyi fi bi mu faatoo nag téere ba di ko fekk di ko fekk barsax mais te te ba yi ñëwatul <coughs> moo xam ne téere bi dafa raf te boobu sëñ sëñ Bamba ngi njaareem mu daal di feeñu sëñ Tuubaa ci njaareem wan ko ne ko dawaa liggéeyal ab téere boo xam ne dama na fekk ba sax te fekk na wuuto ma bëgg nga ta nga yeesalal ma ko ndax xam naan ne yaay mu jënd ci kaw suuf ma di la ñaan sama téere boobu nga yeesalal ma ko bokk sëñ Tuubaa nangulee dawal di wóolu sëñ Mat Jaw mu dellu ba sax sëñ sëñ sëñ Tuubaa sëñ sëñ Tuubaa wóolu sëñ Mat Jaw na ko dawal Mat Jaw bii ñoom téere bu ñuy wax su ma raaw su ma Jaw dem ah, defe na téere bi am na mu yónni ku ñu wax sëñ Mor Ndiaye gis bu Mor Kumba Ndiaye ko koy wax waaye ñoom mu jëru ñaan ko Mor Ndiaye gis bu moom la yónni ci sëñ Mbacke Bousso jox ko jox ko ab leetar def ko ci wax ne mu ndaw ba sëñ Mor jëf su ñëwee ñëwee ñëwee gerte fekk sëñ Mbacke jàngale ci jàkk ji mu toog ba mu jàngale ba noppi mu jox ko caabi ja ak wax ak waxaan sax sëñ Mbacke wubbi ko jàng leetar ba anam mu dem ci biir kër ga yenn ba ngoon bi daal bi leetar def ci waroon ko ne ko boobu téere yi amu fi ba mu ñëwee mu bindal beneen leetar jox ko donc ñoo doon ma alaaj ci alaaj Malik loolu sëñ mat jëmi sëñ mat jaw mooy mooy mooy mooy yónnee di la ti warlu téere bi bi amul ba mu ñëwee ci bu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu demee ca sëñ sëñ alaaj Malik kooku téye na ko ñaari fan wóor wóor ay téeram bi bi bataaxel def ca wax waxal sa ne ko téere boobu ngi wax amu fi ba mu ñëwee moo yaa gis bu ne mu ni ma sonn nga waaye dikkal dawal ma kaw lox ci sëñ Ablaye Niass ay chef ci libre mais bi ma demee kooku itam tey na ma ñetti fan gëstu gëstu mënut a gis bi mu ni ma mu buddi ab lettre war a daal boobu téere amu fi ba mu dikkee nag mën ngaa mën ngaa ñëw dellu si daara ja xam naa ne sëñ bi daa bëggatul mu gis waaye ma laa ma gis ko daal ko sa téere ba amul ci dina daal lu maa koy def daal di garaw sëñ bi nangutu koo gis ba jëmmi jamono sëñ bi woolu sëñ bi ko woolu xam nga amul ba li soññi xam nga bi rek moo soññi bi mu ñëwee ba jub sëñ ba toog sëñ bi da ko da ko fotos na ko altéré ba mu mu naka naka mu ne ko moo la gisee te andiwu ko mu daal jóg ba mu demee la defar ay daam defar ay kayitam woo jabaatam mu jox solo fa juuf ne ko sëñ Bamba damay liggéey liggéey boo xam ne yow rek laa ci boole waaye nag njëkk moo la ci boole demal ci kër demal ci kër goo xam ne ne gan ak dëkk mag ak ndaw jigéen ak góor ak jigéen moo kenn sakku gis fekk wutiwu ko waaw yow yow nag boobu yow nag wolwol bii ñu moom wolwol yi ñu takkal mbaam yi mu ne ko su ma ko yëngalee rek da nga xay dama laa soxla nga ñëw taxaw ci bunt bi ma wax li ma soxla da wuti ko indi yow bul sori bul sori liggéey bii mooy sëñ mbaam yi liggéey loolu laa la ci boole soxla fa juuf ñëw ñëw ca dëkk kër ga waaw sëñ bi kat nee na gar dëkk maa ndaw góor jigéen bu kenn sax ko gis fee wóotewul nee na def na ko loo xam ne ëpp jege na jege na weer mutu ko waaye mot na weer léeg mu yëgal war ma ñëw mu wax ma lu mu soxla ma dem wuti ko ñëw jënd ko waaye buntu moom du ko ubbi mu mu beru nag di bind rek di bind di bind ba téere bi àgg nee yor yor la génn rek sol turki dara bu weex kaalawu bokkub téere mu wuti sëñ ba waaw boo xamu woon lu mu wuti waaye lu muy waaye loolu loolu noonu daal maa maay jàkkaarloo moom ba mu demee sax ba jox ko sëñ bi sëñ bi xool ko ba mu mel na mu na mu war a mel mu ñaaral ko ne ko jërëjëf mu ñibbi mu ñibbi ba mu amee ñetti fan nag. Ahmadou Ambal yu wut téere ba tàmbali si ba ji di ko di ko fekk ba sax mu ñëwaat sëñ sëñ Tuubaa ci batin euh, wan ko na ko damaa ñëwoon doon sant si ndax sama téere xam naa ne xal ko ndax euh, tiyaaba ji doon ñëw ma ngi ma ngi ñëwaat ci man waaw euh, xam ku ko yeesal boobu sëñ bi ne ko kenn ci fere yi mu ne ko ndax man naa koo gis sëñ bi ne ko waaw mën koo gis sëñ bi yónni ab bëkk nit na ko dewal waaye ma ma jaw digg ba cëg ñëw bëgg ne bu ñëw foofu ci kër googu ci ndunga ko ci njaaram ñëw fekk sëñ ba ñëw ñëw wuyu bi ba ñu àndee ba ci kees gi sëñ bi ne ba mu wuyu kees ga la ko joxoñ ñëw ba ko nee bee fa war moom moo doy man fi la yem bi mu ba nee sëñ ba joo ne bi ci buntu bi na asalaamaaleykum sëñ bi ne bi mu duggee rek mi ngi jàkkaarloog naar bi si kim baa ngi buubu suuf daa su daa daa suumu daa kaalu kaalu goo xam ne gi bët yi la lay gis ak si bi ak bakkan bi waaye su sikkim baa ngi buubu waaye dama ko woon gannaaw euh, suufu sëñ bi bi mu nuyoo sëñ bi sëñ bi noonu ma jëw nuyu kii sa gannaaw ku baax la ma wóorul ko jox ko loxoom mu jox ma mu téyante loxo téye mu téye loxoom ma téye sama loxoom ma téye loxoom ma téye sama loxoom yàgg mu bàyyi sama loxo mu bàyyi loxoom sëñ bi noonu ma jëw mën nga dikki dellu ñaareel ma génn sëñ bi waat ma ñëw fekk mu dem mun ma jëm yooyu nga nuyu ndax xam nga ko ma ne ko ci sag baax de xam naa ne bukkul ci waa àddina waaye xamul ku xam naa ne bukkul ci waa mu ne ko Ahmadou Amba Diop gii ba ba mu tëddee booy mënoon yaxloo kooku yi moom moom moom moom moom moom la moom nga doon nuyoo daa sant si sàkku na gis la moo tax mu wolo kon dañoo ji da doon si sàkku it gis moo tax mu moo tax ma wool moom laa doon moom la moom laa ko doon won waaw kooku jëmu jooju mu bàyyi ko addina ak ak jii téeméeri at la nga bàyyi ko addina ak ren jii téeméeri at la Sëñ Mat Jaw man daal koy ñaanal mu génn Sëñ Mat Jaw ci atti bi la bind ci loxom ci suuf si araniyal xadimu walda ambali nisfa nahaari wal mamatu asbali asbali boobu mu téeméer ba mu demee ba këram nag la araniyal xadimu imna ambali badal mamati wal mamatu asbali noonu la demee waaw noonu nii la demee Amadou Ba ambali moo sàkkoon a gis Sëñ Mat Jaw ci gannaaw bi Sëñ Mat Jaw yaxalaat téere bi ci digal Sëñ Tuubaa ba moom sax moom sax sëñ Tuubaa sàkku nag gis sëñ ma Diop mi mi yaxal téeram bii sëñ bi sax ko benn tur daf ko nag kenn ci fare yi moo ko yaxal mu ne ko ndax mën naa ko gis sëñ bi ne ko mën koo gis o oh, sëñ kon noonu lañ loolu demee dañuy safaan dañuy safaan nan dam demee amul am ba li sàkku woon gis sëñ ma Diop sëñ ma Diop sàkku koo gis du gàtt du jorof itam njëriñ gi la waaw du jorof itam njëriñ gi la salaam waaw kon day mel ne euh, dégg noonu ko ci ni ko leeralee leer na nañ ci ñi ci ñuy seetaan ak ñuy dégg danañ xam ne kon ndagate mu daan Bélier moom moo sàkkoo ji Cheikh Amadou Diaw Pakha ci noonu ma ko nettalee léegi xam naa dañuy wéy ak yéen rek ci jataay bi di wax ne Cheikh Amadou Diaw Pakha nekkoon na gànnaar lan moo sabab ak nekkam gànnaar loolu la sëriñ bi fas yéenee digtal. loolu it sëñ bi Diop dafa wax am bis mu xëy di semmulu ci pax gi ci gerte mu ngi toog ci tuur sàq yi gaañaar yi semb doo yaa ngi semb ci kaw mu dégg sëñ bi sëñ bi ca wax wax ca gannaaw nañ mu woo li ma jow te mu ngi ci a gi ci gën mu daal di rocc pour ndànk bàyyi fay ñeeseem bu ñëw ci këram daal takkalu fasam daal di wuti gànnaar nee na ci yooyoor gi lañ ko taxajal suuf si mu àgg sëñ ci yooyoor gi mu màggee ba takk itam ba ñëwee ba mu ñëwee sëñ bi sëñ bi da ko gën donc ma ma jaw ko la woo mu ne ko seen kàddu la leen dégg mu ne ko waaw daal koy joxoñ naar yi naar yi sooy ko lool mu ne ko ñee tax ma woo dama dama fi ñëw ngir liggéeyal liggéeyal yàlla yonent bi ak loo xam ne lii bu yëwén dara du yëwén wala fa may may tontu ak ñoom te yaay yàlla yàlla yàlla moom moo moo tax ma woo la daal koy joxoñ naar yooyu daal koy wax nag man man gën dem seet leen naar yi nag boobu bëgg ñu gis waaye mënuñu koo gis ba mu ñëwee ñoom itam ñoom nu yëntu ak ñoom tàmbali di di wax di di laaj di tontu am na ci ñaar yoo xam ñoo daanu na ko ànd ah, seex mu ne mu ne laa ana xulamu man am suñu borom rek la ah, ñu ne ko ànd na seex kon noonu léegi li ñu bëgg nga ngi mënuñu won sëñ bi mu leen bu ci bu ci won wala sëñ bi rek desee daañu ko sa daañu ko sabablu waaw mu ñu ne ko loolu moo ci des bi rek ñu teg bët sëñ bi rek bi mu ñëwee sëñ bi ah, ñoom day ñoom day seen yitte mooy te teg la bët ak saafante yow rek waaye du lu ñuy laaj waaw teg bët rek waaye du lu ñuy laaj waaw euh, sëñ bi ne ko man yow de mi nga jógee fii man jëm ci ñoom euh, si jéego yi nga doon jéegi boo ci boo ci boo benn jéego rek la ngay wax sax duñu ñu waaw maa ngi ko doon waaye boo ci tegoon beneen jéego rek doo sax xam waaw waaye daal ko jox waxtu nag waxee bu ñu ci àggee maanaam ñoom ñëw boo ñu àggee ci waxtu mu ànd ak naar yi ñëw naar yi dañoo fas seen i kaar ñu ñëpp jox sëñ bi jébbalu ci moom keroog am mooy mooy wudd day man ñooñu ñooy wàllu yooyu ñooy borom xam-xam yooyu ñooñu ñoo ko soxla ñoo soxla sëñ bi ba xam sëñ bi mooy kan léegi nag si nañu woo xam ne ñu xam mooy kan wan na leen boppam ci ci ci ci gisuñu ko jox nañu ko seen bopp seen bopp fasaas wulu day man la ñu tudd ñoo jëkk a jëblu sëñ Tuubaa foofu ci gànnaar ci nii la demee waaw sëñ bi euh, sa nuyoon te ñoom ber nañ leen ba ba ba wax su ko sooyee mu yeewi leen ñu dem bañ jekkee ba tuuti nag sëñ Tuubaa woo joxoon sëñ Mat Jaw ab ab ab néeg da ko dama bëgg nii bi nga dem toog fa ku ku ñëw ku ñëw rek ñu yebal la foofu ci yow ndax ah, man li may def bu mënum ko boole dara te yow yàlla raw fuuf ma jox ko waaw man day lu damaa ci raw nag ñoom day mën nañu maa laaj yi kenn du ko bind ñoom ñoom naar mën nañu maa laaj loxo yi du nekk fenn damaa defee day bi soo bëggee ma defal la ko ni nga ko bëggee da nga may woon la ñaari wati ñaari wati ma Aliou ma am foofu yëpp ñaari wati yëpp da nga ma ko woon ndax man nañu ma laaj loxoy foofee lay nekk te bu boobaa kon li nga bëgg doo doo ko mën a doo ko mën am sëñ ko wax nga dëgg daal ko joxoñ ak kees goo xam ne ko kees googee ab nii sax néew fa soo demee na nga jaxan ci kees ga fra fran fa bu la dara tiim ba ba bët set bu mu nekkee bu guddi mu ci kees ba bët set bu mu xëyee la bi na ko waaw gis naa ñaari yooyu yëpp gis naa mul kii gis naa mën a ko waaw ah, ba yàlla bind xalima te bindagul dara ba bis bi muy dem lënd bi dara bu ma ah waaye nag Mbàkke damaa bëggoon waxtaan de sëñ bi ne ko bisimilah mu ne ko ah bañ de nga jox ma ko ci waxtu yi nga liggéey loolu liggéey bi jeex nga nangu ko sëñ bi ne ko déedéet man jaww dama dama su ma noon def ngay jaww te jaww ñëw ci asamaan ci jaww lay jaar mu ne ko ok ok daal daal ne jaw jawwun wa sayxu sama wal ardu taxta al jawi la taxta sama kenn wax wooyu woowu لأن أحمد جو جون وسيقو السماء والأرض تحت الجو إلى تحت السماء أحمد جون سيقو الفرد السماء والأرض تحت الجو إلى تحت السماء noonu la gànnaar jooju demee waaw foofee bu mu xëyee ba ca ëllëg si nag la xëy siwaat ne sëñ bi ana sultaanul xaalifiin wa mu yëg rafatul xaalifiin sëñ bi def nii <laughs> daal di muñ waaw na cal tur boobu foofu la ko amee ndax sultaanul xaalifiin a ji di ko waral alxem bi léegi moom mun mun ko la mooy law léew yi ma ko moom kenn benn benn wóor yi tey wu na ci xaaral sañ tubaab mi ko mën a wone rek ba joxe ko waaw te moom gis na mu ko gis na mën a ko kon moo nekk moo moo moo nekk seen moo tax mu daal di bind sultaanul xaarifiin ba ba mu fii bàyyi ko lu mu bind si àddina xaaral sultaanul xaarifiin bu mu xefatul xaarifiin lañ bind kudd ga ñuy naan sax man may kudd ga kudd ga ñuy naan ci leero gi moom man may kudd ga te sëñ Tuubaa kenn bi kenn kenn ko wax lu nekkul kenn kenn kenn bi moom ne kenn wax wax fa mu nekkul ndax moom ma ko def waaw loolu la. ñoo xam ne ci kanamam la ko njëkk a waxee. foofu moom moom rek la waxal na ko ana sultaanul xaalifiin wa mixrafatul xaalifiin waaw ndax ndax sëñ bi xam na ndax war na ko war na ko loo xam ne mënu kenn mun ko mën ko moom bu sëñ bi yàlla di ko kenn ku ko ko gis naa ko te moom da ko gis takku bët te te tawut ak moom benn yooyu itam te noonu la ko wax itam na ko gis naa ñaari yoon yëpp keroog yàlla bi ñu xëy ba ba muy dem dënnu bi dara wu ma fi waaye kat damay ragal day nga liggéey bi nga nga jox ma ko ci waxtu bu liggéey bi liggéey bi jeex nga nangu ko te ñu ko déedéet man yow dama boo waroon sama dafa ngay jaww waaw bu kuy rek balaa bu ku may si balaa balaa ñëw ci man jaa ci yow keroog moo waral mu wax def ñaari bayit yooyu daf ko ñaari bayit ahmadu jawwun seequwal fordu sama tax arlu taxtal jaww bi tax taxtal sama yéemaa suuf ñëpp ñu ngi ci doon jaww asamaan moo ëggul ci amadu jawwun seexuwal fordu sama wan andu wi laa taxta sama baa mun amadu jaw jaw wi laa taxta sama loolu moo bay la kenn daf mel ne sant dinañ bu baax a wax ci leeral yi ci noonu nu ko déggee muy Cheikh Amadou Diop wax diggante ba mu nekkee gànnaar ak la fa lépp nettali nañu ko nag xam naa dañuy wéy ak yéen rek ci Cheikh Amadou Diop wax ci bëgg gi mu bëggoon sëriñ bi nga xam ne jeexoon na ci takk ba boolewu kook dara foofu lañ bëgg sëriñ Thierno Diop wax dikkal nu ci. waaw loolu de bëgg gi moom loolu moo waral martaba bi nga xëy ma amaan na ko gannaaw loolu mu amal ko te sëñ bi la ko amee ndax dafa bëggoon sëñ bi ba jàng jàng jàng jàng jàng woowu yi nga xëy moo ci mën ñëpp moo ci ñëpp Euh, bu bu ñaar sax du du jàng fatiha du jàng bisimilah ba parce bam Tuubaa li lay la waaw lu ak yite ji mën te yite ji dara faju waaw loolu euh, woowu dox loolu woowu dox doxin loolu doxee bëgg sëñ bi itam euh, bëgg gi Cheikh Ibrahima ba bëgg bëgg googu loolu roy itam ak ak joxin wi mahabatul abdul xadimi wirdi wa hiya rasil arsi xayru wirdi mahabatul abdul xadimi takfi sarran wa an jël bi takfi محمد عبد الخديم تؤتي بركة من بركات المؤتي محمد عبد الخديم الجنة تدخل أهلها من إنس جن loolu la waxoon bëgg Seex Xadim doon sëkk waaw ci booy fekk aw ay doon sëkk ci boo bëggee aw yi itam boo ko xëcc rek ba doon sëkk Mamadou Abdou Khadim doon sëkk ci boo bëggee barke boo boo dee wird rek itam ba topp Seex Xadim moo gën moo gën moo gën wird yëpp ca fa ba fa ca fa yàlla waaw sopp Seex Xaadim looy waral mooy gis ak jinne dañ dañ dañ tabal a foofu loolu nekk woon foofu loolu loon doxee itam waaw ah, yoon woowu yi loon doxee ba di dox di ci dox di ci dox di ci dox di ci dox ba sëñ bi ci waxam moo mooy yàlla rek mu ne ko man yow xam nga ni nga demee sëñ bi faala fu mu teg tàggam nga teg ko fa bu ngeen naan fas yu dàqee foo toll seen pën bi fu mu la jàng nga fekk ko fa kurul yow di seen pën bi du faar loolu bëgg bëgg bi ak bàyyi gu bàyyi lépp jox jox jox ko boppam loolu moo ko moo martaba boobu aban na ko tegaat na ko ci sultaanul xaarifin ba na ubbi sultaanul xaarifin waaw martaba boobu lu wér la euh, sëñ sëñ bi ko waxal boppam sëñ Balla Bousso radiyallahu nafanaa bii jabar sëñ Tuubaa la son so so son Roqaya Mbàkke mi ko jur moo sëñ mo Roqaya euh, moo sëñ bi Tuubaa bokk Mamour Anta Sali sëñ Balla Bousso ku jàngal noonu ku xarit woon sëñ ma jaw leen ci wóolu leen nag moom daa bis mu yónni mu mu téléphoné euh, Abdou Karim ab taawam fii ci ci Touba Abdou Karim mu wuyu ko mu ne ko ndax yaa ngi fi mu ne ko ah mu ne ko Thierno Diaw ndax mi ngi fi mu ne ko ah dafa yaakaar naa ko de mu ne ko bu fi nee ànd leen wuyu si ko ban ànd leen wuyu si ko mu ne waaw Thierno li may doyee mooy damaa wóor na sa baay ci jamono sëñ bi euh, te ñi ñi bàyyi nag dañ ko xamut ñoom waaw ma ma ma wóor moom ci jamono jamono sëñ Touba dama laa xëy fii bàyyi sëñ bi te waa ci njëriñ ci këram gii dama yoroon ma Diaw sëñ ma Diaw ba ma gont ñëw na ma ñëw naa fa yoon woo xam ne damaa fekk mu tiim ab liir di ko tudd ma ne salaamaaleykum mu a waaleykum salaam xool ba gis ma daal di tëf ci liir jox fa liir ma buso ci kaw non non may naa la ko kooku ko mayoon ci kër kër sëñ bàll buso léegi ma ñëwati beneen bis mu ne ma bala tey tey moom ay ay ay ay bëy ay xar yu duufu ngi waaye ay bëy rek ay bëy rek lay ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tax ñu rey leen ma ne ko ay bëy rek ma ne ko nañ ma jox kayit ak bindukaay jox ma ma ne alaa yaa fatal fidyaani yaa rawlatal xiraa yaa lujatal qaamuusi mu jóobatal xuraa laxat fuxta fii serfin wa nahwin kilayhima fasilta yaa mikraamu jaasoo sa man xaraa mu ne bismillah xiraa xuraa xaraa yow la sëñ Mbàkke Buso la wóolu ma ne ko kuy Mbàkke Buso daa jàng ma jàng rek ni ni ñu ko waxee kuy sëñ Mbàkke Buso daa jàng ma jàng rek sëñ Mbàkke Buso bàyyam la moom bàyyi bokk benn bàyyi ah ne may itam ma gontaam dama dama ba ci beneen bis mu tëddaat tëdd des taalibe yi ñu ko jëbbalu gannaaw yi gannaaw Cheikh Ibrahima Fall man Diop Pakha maa dugal gi ñoo ne ko ah, may dox dañ ma bu mun ma lu mu ma ah, ne ko déet neexal bu rëy mun ma ñaata wax li li mu waxaale boobee ci ko mu bi ko commerce bu gudd di wàññi ba ma sëkk bu joxam ne ko nee ñu ma tey bii su ko ko wax man moo ma ko wax señ Bamba la ko wax naa man moo ko yàlla rek man ko man de ki wax xamu sëñ Bamba xamu waaye ki wax li ma wax dëgg la waaw sëñ sëñ Ba sëñ Balla Bousso moo ma nekk lii mag wax na ne euh, imaamu nal fardu la si laa yuñ mawu wala yu sanna wasi waxu yuñ mawu kama yu sanna waaye fardu na ali ak baru daa bil sunu sunu bi moom kenn képp la am kenn ko ñaareel kenn kenn ko ñetteel disu ko limaale ci mbooloo disu ko ñaareel itam kullu moom nag mën naa mën nañ naa limaale ci mbooloo kullu moom mën nga kon kon noo ko déggandoo noonu ci Cheikh Ahmadou Diaw Ba ci bëgg gi mu bëggoon sëriñ bi muy leeral nañ ci leeral goo xam ne maanaam maanaam jéggi na dayo nga xam ne noonu mu ko waxee ci bëgg sëriñ bi ak ber gi mu ko beroon diggante loolu ci biir kàddoom dañoo dañoo dégg mu ne barke borom Touba daan na ci jëfandikoo léegi barke borom Touba googu noonu lan bëgg dikkal ci ci yoo xam ne moom maanaam jéggi na ci doy ci yoo xam ne maanaam daan na ko faj te ci barke borom Touba la daan ko fajee. waaw barke borom Touba yooyu moom mooy moom moom mooy léppam daal daal daal tàng sax ku defal la yaakaar ku barke borom Touba gàttal na gàttal bàyyi waaw loolu sax dala sëñ Issa Dieng moom wala wu wax moom ñoo ñoo daa ànd guddi bëccëg sëñ Tuubaa it moo leen boole woon sëñ Issa nag am ab ab dof boo xam ne bii sëñ Issa day faj dof waaye dof boobee nag eh, jaaxal ko lool ndax day def bu bii ne saafara jox ko rek dox bi dof bi eh, yiy yiy kaas yiy kaas ba song ko ba day woote def ko ay yoon bi mu bi mu ko jaaxalee nag mu mu mu dal ko yeewlu daal di wax na nañ ma ko yëgal ma sëñ ma jaw mu jimbali ma sama dof boobu ba bañ ko yewee ba andi ko suñu mot yow na ko sëñ Issa nee na kat doxam boobu nga dimbale ko moo ko moo ko yewlu na nañ koy dañ koy yew ndax euh, boo ko jox safara yi na nga fa na fa ay nit jege ndax day songe soo ko boo ko joxee safara yi da lay song te bu fa ñëw rek da gaañ mu waaw loolu moon ko loolu waxoon mu ne dañu koy yew mu ne waaw yewi leen ko mu ne ah dafa ne leen ko rek ñu yewu ko ñu ne waaw mën ngeen dem bu ñu mu mu mu mu woo ko jox ko jox ko saafara mu naan ko morsa kaas ba teg ko pare ko ko mu ne woon fan mu daal dina man de dama bëggoon ñu yóbbu ma si daal ñu ma barkeeloo tool ya si la jaw ne man ñu ne sëñ bi ñëw mu ne ma ànd nag waa tali boobu daa bëgg barkeeloo ci ñu ànd dem ci tool ya si ne nee buñ waa ji waa ji man mun ma jaay sa bi saas yi waaye buñ topp bi bala ñoo xaajal bala ñoo xaajal mu jeexal toog fi yow di di lu xaar bu ba ba ca ba bu dul seen sëñ Issa nag nee ma seet si na sama dof boppam moom ñëwee na ñëw sëñ ma jox na ko ana mbaar mu ne ko ah, ma nga ci daara ji mu ne ko daara jan mu ne ko mu ko ci daara ja mu ne ko ah. moom dama ñett fan la ma dama bëggul barkeel ci daara ja ba ma wóor dongo yi ñu kenn ci dongo yi ñu yóbbu ci daara ja ah, mu ne mu daan kon ñu woo ko mu ñëw ñu waal ko ñu waal ci yónni nag ñu woo ko ba mbaar ñëwee ba si sëñ Issa rek sukk diraam diraam diraam ba ñëw ñëw ñëw ñëw sell mel ne doon doon mbaar daal mel na mel mel ni ñëpp na mel sëñ bi sax xool li ko yàgg mu baax mën ngaa dellu mu daal di dellu si daal ja moom sëñ bi jox foo jaar mbaar mi man ko ah fi ma jaar moom ko biir jurul lañ ma kenn kenn sutuma ci ci ci talsam ko jox euh, da koy mu ne mu ne ko man kaas bi ko jox da koy mar mu set mu mu mu <laughs> ne ko loo ko doon jox mu ne ko barke boobu Tuubaa jeex na parce que moom tubaab yooyu la ci la wax dafa boobee léegi li ma fàttaliku yi ci nekk ak moom yëpp it mosuma dégg benn benn benn ku muy ñaanal mu jàng bi Faatiha wala mu jàng saatu lan bi déedéet parce que moom tubaab waaw loolu la loolu la loolu la xam ci lu muy lu muy lu muy jàng lu muy lu muy fajal bon bi yàlla dogalee itam eh, sëñ tubaab woo leen ñoom mag ñi ne dama bëgg di xam mooy jàkk yi njëriñ jooju jàkk rek leen waxoon ñoo ko def ji ma waaye jàkk rek leen waxoon bañ génne ñoom mag ñi ñu dajaloo ñu waroon nañ fal diw sëñ saa yaay jël marcel bi sëñ moo tax sa loo yaay yor dongo yi nangam ko ne ñu yaay dafa nangam yaay nangam ba ñu àggalee nag sëñ saa la waa léegi marcel bi xaa kenn ku jël ay loxo léegi da ngeen sas wala sas leen kenn ku ne sasu ba ma sas ko ñun bisimilah ñu daal di ñu daal di andi ay carnet ñaan bi ma junni ñaan juróomi téeméer ñaan ñaari junni eh, di ko def ba ñëpp bindu sëñ sëñ sëñ bi doon ci rek sëñ Issa ne ko yow naka naka mu doo mu ne ko ah, man li ma li may gis kenn ko bind mu ne ko ah, kon wax ko mu ne ko ah, mën naa ko wax la ay kenn ko bind mu ne ko bisimilah waaye donc ay sas wala ma sas la mu ne ko man maa sas sama bopp mu ne ko bis bii xaaral sëñ Baba joxoon ndigalam ci ci jàkkaam ji ba bis bi ñuy julli ci jàkkaam ji man yow du fi jënd aw dal du fa xaar lu ñuy jaay te lépp lu ko fi yàlla jox dina ko indi ah kenn ko ah ah yow dama bëgg dama bëgg a nax fan ma fan ma may noonu laay def ba ñëpp far waaw loolu xam xam sëñ bi ak bëgg sëñ bi loolu loolu mu ne mu ne ndigg di sëñ bi moom lépp ngeen naan junni ñaari junni ah, sëñ bi moom lépp waaw sëñ loolu firndeel na ko ci lu bare bare bare bare ndax yónnee na ko addi joo xam ne ñaari ñaari ñaari góor jox ko ah, talib bu ñuy wax ku ñuy wax Cheikh Sarr ak ku ñuy wax Abdou Diaw waaw wax sëñ bi na ko makantu ala yaday ab jaw wa mahawa bu nayu kabiri Cheikh Sarr Diaw ramaka tey ni aw bir sanu tey ni li yosilahuma ilayka adiyatayni wa inni jaaltul yawma wa barakatuka iyal marjuwa wa marratuka iyal manho jamihuma jamihama malakatu yadi milka majas ala yadayka alkarimatayni almalikatayni milka aqiqa jami ma fi aydina ala al ijas waaw loolu la ko mujj bind ci leesal boo xam ne ak ak jëlaat àndal wala ko ko nun ma def naa def naa tey jii lépp loo xam ne nii lu sama ñaari loxo yi moomati yàqu moom waaw tey nun ñëpp lépp boole si loxoom yow moomuñu la sëñ bi di daanaka ci da ngeen yéexe bamba nun nu teele bamba ku yéexe bamba ñee ku teele bamba koy joow ci kaw waaw da ngay yeexi bamba nunu teele bamba ku yeexi bamba ñee ku teele bamba dumul sëñ bamba ci ak ak ci ci ci ci ndaw la dem ci moom la dem ci ci ay bayit wax na ko sax ne ku teel a ànd ak moom la waaw min si seen xaabe fii maamal santu laa wajaade maa yëqil abaahi ji lii waxam loo kuntum max ku kël wali di law bi arsin sa bi yén indiyel nekk sa biyu sa mooy ko amagul amagul amagul amagul kër waaw bu loolu bu loolu ngi santaan bu baax a baax a baax di leen fàttali rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Thierno Diop Paxa Touba Ndamatou Ngélamu ngir waajtaayu bisub sant Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ñu dikkoon fii rek ngir di leerlu ci Cheikh Ahmadou Diaw day mel ni kon noonu la ko déggandoo gisandoo ci ay leeral yu leer naññi yoo xam ne maanaam lépp daa leer naññi te jëm ci Cheikh Ahmadou Diaw kon xam naa maanaam comme nin ko waxee léegi rek muy muy muy muy jamonoy sëriñ bi moom dégg dégg lu naan dégg sëriñ bi jafe woon na wax ak sëriñ bi tamit jafe woon na waaye Cheikh Ahmadou Diaw day mel ni sëriñ bi cëralee woon na ko ba mbokk ci ñi nga xam ne mën noo wax ak sëriñ bi nga xamante ni maanaam loolu lu ko sëriñ bi cërale woon la loolu tamit bëgg nañ mu defal ñu ci ay leeral ndax jamono jooju dégg sëriñ bi wala wax ak sëriñ bi jafe na waaye moom tamit sëriñ bi da woon ba xam ne bokkoon na ci nga xam ne mën na noo wax ak sëriñ bi ci ci ci ñi ne tamit sëriñ bi daa balaa def daal dañ leen woo wax wax ak ñoom ñu jottali loolu daa laa bëgg mu dikkal nu ci waaw loolu dafa am bis boo xam ne bi ci njaarim sëñ sëñ Malick Ndiaye moo moom sëñ bi wooloo wooteloo suñ sule wax wax ko ne ko buñ solmee takutaan ñëpp wuy si sëñ Malick Ndiaye di wër kër Ndiaye yëpp kër kilifa yi ki ñu yaakaar ne ki ñu xeeti tey ëllëg ne ku jul tax sax nanga wuy eh, bi mu ba mu agsee ba ba jub ko sëñ Malick Diaw ba ba romb ko sëñ ñëw dégg woote bi mu ne woote boobu sëñ Bam bi woote de moom wujjul ku wujj da nga dem sa war loolu sëñ Malick Diaw wax woote boobu sëñ Bam bi woote man Malick Diaw su ma wujjul ku wujj da nga dem sa war ba njëkkee ba takku saat mu tàmbalee ay béy yoo xam ne yi da ko bëggoon yu bari far nag te waxtu jot na Eh, sëñ bi bi mu génnee na laaj ma sàmm sëñ ma sàmm na ko ndax mbooloo ñëpp ñëw na mu ne ko ah, mbàkki ñu bari ñëw nañu mhm. mu ne ndax man jëw dikk na ñu jox ñaar jox jaati ñu ne ah man daa mel ñëw nañ ko nañ ko gàttalu mhm. sëñ sëñ ma sàmm ne nañ ko gàttalu ñu daal koy gàttalu mhm. ñu waa fekku ci fekk muy def bayit yi ñu ne ko sëñ bi de yow yow yow dong lay xaar mu daal di ba bàyyi bay bàyyi lu mu doon def ko ci poos ci jiwam ba avant kii rek sëñ bi ma jëw fonne woon mu tàmbali bëgg a dugal ci wax mu ne ko bàyyi ko xaman naa ne ci ci man nga ne oh. waaw mu ne ko mat jaw waxal booy ne nañ sant yàlla bu baax mu ne ko mbàkke mbooloo bi ne ñu ngi sant bu baax mu ne déedéet ko ja bu ñu ko jàmmoo dal tëkkoo leen sawara ñu ko mooyee bind àjjana bind bind guddi bind guddi bind góor bind bind jigéen bind àddina bind àlaaxira bind àjjana bind sawara kooku yi laa wax nañ ko ko sant mu ne ko mbàkke kooku yi ne fare yi ne xamuñu ko yow lañ xam ñu ngi lay sant mu bis billaah ndax moos dama leen doon dama leen doon fiir la waaye tax bu leen ci fiir bu ñu ko defaloon dañ ma bàyyi leen moom bu ñu ma wayla woon seen cosgoog yi ma bàyyi leen moom ndax euh, seen bàyyi seen bàyyi ak seen maam yi fekkoon nañ fekkoon nañ ko fi te mënuñu ñu gën loolu kon fii la la ci sëñ bi ndax bëgguloo ñu tàbbi ci fiir googu ak cant googu mënul sant lu boo xam boo xam noonu sant lu waaw waaw waaye waaye yàlla leen sant lu <laughs> waaw moom mu dégg na ci moom moom la yàlla sant moom noonu la ko déggee moom sëñ bi nag ko bu ñu ko dugaloon ma ma ma ma bàyyi leen moom ndax seen maam yaa seen bàyyi fekkoon ñu fi te mënuñu nii mel. Ah, kon noo ko déggandoo day mel ne kon ci dégg googu nga xam ne maam sëriñ bi defaloon na ko ba mën a wax ak sëriñ bi loolu loolu ñoo ngi ciy sant bu baax a baax waaye day mel ne Cheikh Amadou Diop ah, ci dañoo gis ñu ne na ci xasaratul mu basara waaw ah, loolu lañ bëgg ñu di ay leeral moom loolu moom li ko waral lu tawfeex rek la euh, euh, euh, sëñ bi moo moom woolu ma fukki nit ñi lëndëm waaw nee sama sama sama sama sama xarit ba sama sama yaakaar ja sama wasila ba daa amoon fukk ñoo xam ne ñi dañoo joxoon ndab loo xam ne dañ moom moom moom moom la ma rafetlu ci ñi waaw ñu sukk ndab la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom fukk ñoom fukk ma jëw ci la bokk waaw loolu que suñu parce que xam ne ñi moom war nañ ñeen ne yéen moom yéen yéen àjjina moom seen waaw loolu moom bokkul ci yi ñoo ñu si yàlla taw xam naa ci ñu bari waaye euh, am na ci waaye xam seen tur bind naa ko waaye euh, am na ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu wattu ñu bari fukk daal la ñu. waaw ah, kon noo ko déggandoo ci xasaratul mu basara mu mel ne tamit dégg nañ ñu ne Cheikh Amadou Diop wax danaa wax naan su ma faatoo bu ma kenn toppee lixlaas. waaw loolu moom daa wax ne bu ma kenn jàngal Fatiha bu ma kenn jàngal alxuraan bu ma kenn jàngal euh, bu ma kenn jàngal lixlaas. sëñ daam Abdourahman na ko man de boo fa boo ma jëkki faatu bu ma jàngal mu ne mu ne ko moo ko jàngalee nag mu tooñ waaw waaw waaye sëñ daam far far far jiitu dañ <laughs> dañ bàyyi sëñ dañ bàyyi sëñ bamba rek waaw loolu la waxoon waaw da boo boo dara tim itam loolu la waxoon itam moo fi bàyyi ko moo dara tim moo ko ñu wax sëñ masal bi solo ñoom ñaar daal laa dégg ci koo xam ñoo xam ne dañoo xam ne dañoo wax ne bu ñu fa bàyyi ko bu dara tiit ñoom ñaar nag sëñ bi dem gànnaar ñoom ñoom ñaar rek ak bu weesoo sëñ Fallu ak sëñ Mun Musaa ñoom ñaar ñoom ñaar dong ñoo fa newoon moom ñaar yu jëkk yëpp ñoom ñaar ñoo ñoo fa newoon sëñ bi nanguwul kenn ku fekk gànnaar ci waxtu woowee sëñ Modou Lo dagana te woon dagana sëñ Modou Lo moom moom moom moom guy guy guy guy guy ndàngam la rek sax ci njàmbur waaye Modou Lo dagana ji moom teg boo ko sëñ bi te woon dagana rek na ko bu kenn romb ku ñëw daal jox dana ko jox bawel ma jox li ko wax ku woo ku woowul daal feeg wóote mm. am na ñaari at mu <laughs> kon day mel ne leer na nañ ñi ci noonu lu ko déggee su ko defee rek xam naa dañuy dugg ci màggal gi nga xam ne Cheikh Amadou Diop wax da cee amoon maanaam pas-pas bu rëy te tamit am na xeeti wuute yoo xamante ni ñoo ngi koy dégg tamit comme noonu ko dégg ci weesu ci ay ñoo xam ne ñu ngi nettali ci histoire boobu noonu danoo danoo danoo bëgg a leeru rek waaw Cheikh Amadou Diop Baxa maanaam nan la meloon ci màggal gi ak tamit ndigal li nan la ko sëriñ bi waxee loolu tamit maanaam lu lu bëgg a leerul la. waaw màggal gi day sëñ bi da ko wóor ba mu ñëw mu waxanteeg moom ne ko man jaw day yàgg ngeen ma ñaan bis waaye tey jii yàlla jox na ma bis boo xam ne mooy sans bis yéen yéen yéen seen bis ndax bis la boo xam ne bii lépp lu am ci la ko am yéen lépp lu ngeen am ci ngeen ko am ba tax na. mooy bis bi nga xam ne tubaab yi dañu si jàppoon am lu ñu waxoon am lu ma waxoon la waxoon ñoom mënuñu ci tus man laa waxoon ma def ko moom sotti cooleet sama borom nag wax wax na ne may yii may may na ma may yoo xam ne ci bis boobu yi boobu mu dem déndam bi bis bu des bis bu desee ci mu ful may ëpp loolu bayaan ma koy loolu nag ma lot ma lot ma lot lot lool ci cant gi ma bëgg yéen ñi nga xam ne soo soo soo mbig mooy seen mbég lu ngeen am ci waan ngeen ko jëlee mbay mi moom ci bis bi laa ko bëgg yéen ngeen jàppale ma ci bis bi sant la ma bis bi waaw sant la ma ci sàmburu sant gi nag lu tàmbalee ci gaar ba ci gileem lu ci waay def bu ko tiimee na ta na tawlu ca paak ba bisimilahi yi fen ngeen la ngeen waxoon mën ngeen ci tous sëñ bi moom la waxoon ak borom so def na ko mu sant ci rek daal leen doole ma waxee bàggal waaw daal di ko nag waaw. daa bëgg ko am na bis <coughs> yonent bi moo ganu gàmmu tabaski maam suñu Ibrahima moom moo ko moom man na bis bii mooy sama bis yéen ñi mooy seen bis na ngeen ko def na tabaski waaye nag moo gën ci yéen tabaski na ngeen ko def na tabaski waaye yéen moo gën ci yéen tabaski sëñ ma jëm mun la ko tuddee woon tabaski mun la ko tuddee woon mun ñu yëkkati ñu ñu yëkkati woon moo tax dañu mel ni ko ci màggal waaye la ko tuddee woon ndax muy mu wax na ko man day màkkee dangaa wax ne sa bis bi nañ ko def ne bisu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam man man jaw day magal yi salaam li muy baax baax du toom ci man gannaaw ndax man Ibrahima defal wu tus man lu ma am ci walla ko jëlee kon man du ma wax leen suuf suñ ko tëgg la am sëñ bi ne ko boo jógee nga dem ca Balla Fall Dieng wax kooku te nee ko da nga wax far yëpp ñu ngi wax sax naan sëñ bi da ko daa woolu suñ Balla Fall déedéet yónni wóolu woo suñ Balla Fall Dieng da ko caa yónni soo jógee nga dem ca Balla Fall Dieng wax ko wax ko ni ma waxee te nee ko na ko wax yëpp ba ba sëñ ba ko waxee sëñ Balla ba sëñ Balla daan na ko jërëjëf sëñ ma jël na ko wax ma ko mu ne ko ah yaa ko wax di mu ko yaa yi laa bokk te dox na nga wax ko fare yëpp noonu la wax ba mu demee wax ko sëñ Balla Fally ba na ko wax ma ko sëñ Balla ah, ma yaa ma ko jot li mu ne ko fare yi fare man ci fare la ko wax loo fare yi ma ko wax loo yow mi ko wax fare yi nag man dëkk ma ko wax man man ci fare yi la bokk gannaaw gi itam sëñ bi wax ko ci loo xam ne lii loolu moom boo la moom moo sëñ bi rek ñoo ko xam ndax booba euh, ba ko sëñ bi kenn ku ne seen kër koy màggale ba dañ koy defee ba muy fukki at ak juróom-ñeent waaye fekkee ne am na ndigal leneen waaye euh, bi sëñ Mourou Moussa wootee bis bi sëñ bi ñëw Tuubaa mu xam ne ñaari bis bu mënta am te ndigal loolu moo amoon na ko noppi mun a mun a cal ba mu ne cal ba sëñ Mourou Moussa bàyyi ko fi à 45. sëñ Mourou Moustapha bàyyi ko ba 45 euh, sëñ sëñ Fallou ñëw am juróomi weer ñëw ñëw ñëw Gossas góor gu ñu wax Matar Diaw moo ko doon conduire Matar Diaw moo ma nettali lii bi ko ko sëñ bi sëñ Fallou bi ko sëñ bi sëñ ma jox sëñ Fallou ne bi ci oto bi ma Diaw sëñ Fallou laa àndal mu ne bëri ànd ak ci oto bi ma la koy jox loxo ci oto bi daal ko sëñ Fallou lan la capatee ne sëñ Bamba arfin berfin sëñ ko lu mu bi sëñ Bamba bii bis boo ko wootee Touba murid yëpp fekk la Touba dafa doo ko yow Touba ngay sëñ Bamba atum daal sëñ la ko danaa ko def mu bàyyi loo ko ñu wàcc noonu la demee ba sëñ Fallu ba ba sëñ Fallu amee ñetti fan ba dem la tàmbali waaj moom ñetti weer la ci teg moom mu dem fekk na njëkk loolu daal wax naan yàlla mën na lu ne ba mu des jëli ma fi si ndax sama sëñ ba diggante woon ma defagul te dama sama sëñ ba diggante ma naa ko def te lu ma diggante dinaa ko def kon yàlla mun man na loo mën si jëriñu si yëngu ma ko ba mu waxee loolu sëñ sëñ Fallu ba sëñ Fallu nongoonte moom loolu nag eh, ba sëñ Fallu génn demee rek la tàmbali wàññi moom ñetti weer lañu ci teg eh, muy sa 46 mu ci 46 47 sëñ Fallu woote ko tubaab yi noonu la magal ne leer na nañ ñi ci màggal gi xam naa dañoo bëggoon a yemale foofu noonu waaye demee ne dafa yeneen ñaari laaj yu dikkoot yu dikkaat muy danoo danoo wax ne bi fi sëriñ bi jógee ci saaxir moom Cheikh Amadou Diop Paxa am na nu mu doon ko dundee waaw mooy bi bi sëriñ bi jógee bi mu ñibbisee Touba ci saahir ok loolu lañ bëgg ay leer moom tey. dafa daal di bënn daal daal di gëm benn botum wane ne ad jamono adduna ah, suñu ma nekkul lu xool yaa di ñëpp ba ñu fekk mu gëm benn botum bi bi bët bii da koy piis rek tuuti la xool yàlla dogal suñu fa ba fu ñëw nag nee na ko xulee ñaari bët yëpp na ko sàmbar yi dara si ku ci waaye jamono àdduna yi sëñ Bàmba ne ko moom jëlatul xool ñaari bët daal daal koy gëmbar loolu def na ko fu at ak juróom soog koy bàyyi ko gëmm na borom bët càmmoñam bi fukki at ak juróom-ñeent soog koy bàyyi ko waaw ngeen na ne ne àdduna yi sëñ ko xool ñaari bët mukk loolu la dundee àdduna ci gannaaw sëñ Bàmba wax nañ ne bu dul woon wóoleelu sëñ Bàmba boole ak sëñ kon bis bi sëñ Bàmba ñëw Tuubaa keew la ñëw Tuubaa waaye sëñ sëñ bi da ko boor sëñ Isaa wóoleelu waxee sëñ ko bàyyi foofa di ñëw fii ñëwtu ko moo tax sëñ loolu sëñ am na jamono suñu jamono sëñ Fallu ju sëñ Fallu neew kat la sëñ Tuubaa sëñ Mor Jaw bëggoon jaay doom lam ba basala woon yow mi yaa ko def oh. waaw yow mi yaa ko def daa bi ba sëñ bi ñëwee gàllankooru ngir wala lu sëñ yow nag ba ma la woo kon te la santoon sa baay bëggoon yaa ko def am na jamono yoo xam ne sëñ bi wax na ko maa ngi moo jël rek kon demee ne leer na leer na leer na leer na ci noonu la ko déggee kon moo wax ne tamit ba beneen tamit beneen laaj boo xam ne dafa jëm ci diggante baabul muridiina di maam Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Amadou Dia day mel ne ñoom ñaar tamit amoon na kóllëre gun seqoon waaw loolu tamit cee leeral ci tamit beneen bi ci teg tamit mooy diggante diggante Cheikh Amadou Dia Baxa ak yi ni mu ci meloon. mu ne ku jàppoon si Cheikh Ibra waxoon ne moom rek lay roy. moom doo ngi la bëgg doon loolu moom la doon itam moom waral sëñ bi di ak moom ba àgg ak moom foofu mu àgg moom ci dafa kenn fenn ci eh, gannaaw yi fal kenn ci eh, kurul yow du seen pën bi defal loolu aw nga wax def naa biir yoo xam ne caa na it moom faw si ab xaatu yu Cheikh Ibra Fall bu ne ci àddina ak bu ne àllaaxira loolu loolu def na wax na ko ne ñëpp noo ngi lay waaw waaw ñun ñëpp noo ngi lay roy yoon wi nga xam ne moom mu jaar moo yoon wa moo tax moom dogal dafa la xeetu waaw sëñ Issa nag ak sa moom àndandoom jox mi moom duñu tàggu guddi waaye ki mu doon roy moom mooy sëñ bi moom yow loolu moom loolu moom hmm? euh, sëñ bi moom euh, bi xasida yi ñoo fi ne ndax moom moom ci daara ju mu xaddimata gis boobu mooy bu la jox na ko tari na ko jàngal ba tari ko boo ko taree mu ne demal liggéey waaw waaw te bu te bu ko wàccati mukk waaw saa yi moom moo doon léppam waaw soo gisee baat bi ma def ko tuddi ko dóor daal nii la ci moom tax ma def ko ndax ndax ni mu bëgg sëñ bi rek noonu bëgg noonu bëgg ak sayt noonu bëgg sayt waaw waaw noonu ko bëggee sayt yi ci lépp ne sëñ bi ci def lépp ku bëgg ku bëgg a jëyee sëñ bi ku bëgg a jëyee yàlla da ngay jàngal xoraan waaye ku bëgg a jëyee sëñ bi da ngay jàng xasay ku bëgg sa aajo faj faju itam da ngay jàng sayit ku bëgg sa aajo faju doo kon ñoo ko déggandoo xam naa damay poroxandalu foofu rek ci Cheikh Amadou Diop wax diggante ma xaside yi ñuy woo bépp jàngkatu xasida moo xam kuréel moo xam rajas moo xam durus ci bis bi nga xam ne nii dañ ciy sant Cheikh Amadou Diop Paxa tabaski ba am juróom benn fan te ñu koy amal fii ci daara yi nooru daare ni nga xam ne sëriñ bi leeral na ci ne maanaam bëgg gu mu bëggoon xasida yi sax moo tax mu tuddee daara ji nuru dare ni kon ñu ngi ciy woo bépp jànkatu xasida ci bis boobu noonu tabaski ba am juróom benn fan fii ci Touba Ndamaatu daara yi nuuru dare ni waaye nag ci ndigalal sëriñ bi toog di sëriñ Thierno Diaw Paxa xam naa ñoo ngi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ñu toppoon di seetaan su ko defee rek moom suñ jaroom mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko te tamit maanaam ñëpp xam nañ ni mu mel ci sëriñ bi waaye tamit ñëpp xam na digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal fi ñu tëjee suñuy kàddu rek jox ko micro bi mu mu mu digtal nu tuuti rek ci digganteem moom ak Cheikh Mamadou Fadal su ko defee ñu ñu ñu wàcc ñu wàcc kàddu gi ba beneen yoon. waaw sëñ Fadou de moom 1950 la la wax ne dama dama wax ne dama naa naa gàmmu si dama soxla ba ma gàmmu see am mu dalal ma kër Alaaji Baara. ba ma am juróomi fan ci ak toog sax ñu woo si ma ma ñëw mu mu ngi ci waxtaan bi euh, sëñ Manja sëñ sëñ Mbaye Sall nga ci waxtaan bi ak sëñ Ousmane Bousso mu mu ñu ubbil moom moo ñettali leen loolu wuti àll yi at moom la sëñ ci àll yi man demee àll yi it maamaat fa juróomi fan mu woo bokk ni bu ñu wax Cheikh gi na ko Thierno Diaw moom yi doomi sëñ Manja wala na na dal sa néeg ma dal néegam mu dox ma lalam di tëdd ci suuf mu juróomi fan. yow ba ko juróomeel nag ca ak timis laa tëdd ca buntu kër ba rek. cheikh gi dugg dugg ba ci wàll ah Thierno Diaw man maa ngi mun a kaay wuyu ma ñëw fekk sëñ bi yor kurusam ni ma ko yore rek nekk ci ak njowaat foofee mu mu maa ko fekkoon foofee nee boobee keparam nee boobee mun ma moom sëñ Maodo Mamadou Mbacke doomam ji foofee foo nee boobee la ju ci la ci la ñëwee àddina booba ñëwagul ma ñëw fekk mu yor kurusam ma ñëw toog sukk toog moom rek moom dong moom dong moo fa ne mu yor kurusam ne kurusam ba mu soob ko mu wékk kus gi ci ci ci jël njuwaar yi jox ma jox ma loxo donc kooku Thierno mu ne ah mu ne sëñ Palla loo bëgg mm-hmm. da ngaa bëgg a toog fi maanaam da ngaa bëgg a dem sa kër baayam da ngaa bëgg mu ne ko dara lu lu ma wax da la bëgg mu ne xam nga lu ma lay doyee ma ne ko déedéet mu ne ma damaa la la la sëñ Tuubaa joxoon sëñ ma jaw mi ngi sama loxo bii mm-hmm. daa bëgg yow mi nga laaj ko jox la ko mu ne ko man de loolu képp laa soxla mm-hmm. mu ne ma xam xam xam nga lu koy maye mu ne ko déedéet ma kaña keroog laa ma sa dégg kaña ci mu ne ko ne tey mun nga xam kañaa ma ne ko déedéet mënu ma ne ma ne ko ne tey mënu ma ci daara ji laa wax ma ne ko ne tey mënu ma ci daara ji laa wax ma ne ko ne tey mu daal di Cheikh gi dawal woo muur si Cheikh gi dem woo muur si moo moo moo jëw ñu mag gi mu ñëw leer bu neex maa ngi soog benn xatar basé ak ak njiit la yam képp mu ne ma mu ne mu ne mu ne muur si Thierno Diaw mii kay gisul mu ko Fallou Cissé Fallou Cissé ndeyam ak ndey yàlla ji baara bokk ndey ak bay fat sàll ak ak ak sol xari sàll waaw soo demee nee ko Thierno moom mii loolu si mu ñëw na ko teg ci yoon rek na ko teg ci yoon ma daanaka Thierno boo de boo defee ba dinaa def nii mu wax daa daa def daa daa daa jox sax loo xam ne loo ko woon dégg nga ma ne ko dinaa ko def de daal di fuuteet xaftaan bi ma soloon daal ko daal ko xëpp daal di waaxu taxum tàng ki may yób ki may yóbbu moom mi ngi toog man waaxu naa ba so so sëñ bi Thierno Thierno ñaari yoon ma ma ñëw toog toogal ma toog bisimilah. daal seex gi dugal ci néeg bi yun ma loola ci taw taw ko seex gi indi ko mu mbalaan mu rawal mu rëy mun xëpp ma bi doon de ko sangoo seet bi laa métti lool de ko sangoo maa ji mooy fukki ak juróom mu mujjee fii ci nit ñi ay 63 dafa ne mbooloo mbooloo mu bari ñu ngi toog yu bari mën naa ci lu bari nguur si dama ko doon wax man jaw rek man jaw man jaw moo ko bëgg koo leeral te ji ndax ko waxoon na ko lii sëñ Mat Jaw sëñ Tuubaa jox sëñ Mat Jaw man dama bëgg yow mi nga laaj ko jox la ko waaw oh, la ma waxoon lépp def ko ko mu neex ku mu lépp lu sëñ Tuubaa joxoon sëñ Mat jox naa la ko dégg nga ko ku mu neex mu naqari waaw boobu boobu ngi fi <laughs> ba ma wax boobu ngi fi waaw ñëpp fekke nañ ko mu neex ku loolu daal defe am na firnde bu bu baax loolu moo xam ku ku ku ku xam rek xam nga ne am na xam nga def ko itam def naa ko ah, kon noo ngi jaajëfal bu baax mbokk yi ñi nga xam ne ñoo doon ñu topp ci waxtaani Cheikh Ahmadou Diaw Pakha te Serigne Thierno Diaw Pakha Asadou paxa man nga xam ne moo doon moo doon moo doon ko amal di ko jaajëfal bu baax te di ko ñaanal sëriñ bi gën ko fee yàggal lool ba naal yi nga xam ne tamit naal na ko ngir liggéeyal ci waajuram wa mu def ci lu kawe njortam te ñun ñëpp tamit ñu fekk ko fi waaw ah, ci doole xasida yi ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax a baax kon noo ngi jaajëfal bu baax a baax a baax mbokki murid yi ñëpp tàllal rek sëriñ bi def ñaan kon wa kullu man lam yakun fil madhi mujtahidan faqad kafa anhu man yusma bi ahmada jaw wa kullu man lam yakun fil madhi mujtahidan faqad kafa anhu man yusma bi ahmada jaw faqad kafa anhu man yusma bi ahmada jaw